حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا عناء arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi mbokk yi seetaan seen télévision TFM religion ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara amaat mbégte dellu siwaat ki yéen ci seen émission bii di arrêt sur texte arrêt sur ni ngeen ñu ci daan toppee saa yu nekk rek ñuy dugg ci këru diine yi di jël ci mbind yu mag ñi ak seeni xalima di leen andil waaye di génn di dem ba bitim réew di topp borom xam-xam yi ak seeni mbind waaye ak seeni xam-xam seeni xalima yi nga xamante ni nii mu ngi dotteeku ngir jàngal askan wi waaye mi ngi dotteeku rek ngir yee ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, mu mel ni nag ñu ngi jóge ci eh, tabaski waaye ñu ngi jóge ci aj makka gi nga xamante ni nii yaakaar yëpp foofu la aju muy eh, kaabatul musharrafa waaye di raw di bu tedd boobu nga xamante ni nii eh, nee na ku fa bagante diggante mim baram baak rawdu ba mel na ni bagante nga ca jardin ajjane kon ñu ngi ndokkeel xujjaaj yëpp alaaji yeeg ajaratu yëpp ñu ngi leen di ndokkeel di ñaanal eh, seen i kaala yàlla jàmm wante ñi fa demul it yàlla leen yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam xam naa sax ñoom la ñuy nuyoo eh, eh, morceau bi nga xamante ne nii moom la ñuy jëkk indi muy ilaa arafatillah ya xayra zairin alayka salaamullah fi arafat te Ahmed Shawqi bindoon ko Xalil Xidyawi nga xamante ne nii tàgg woon na ko ni ko dama bëggoon ñu dem aji màkka man ak yow wante moom mu gàntuloo Ahmed Shawqi ginnaaw bi nag xolam yedd ko xelam yedd ko mu rëccu nag yónnee ko xasiida bi di ko wax ni maa ngi lay yóbbante sama nuyyo yow mi nga xam ne yaa jëm ci arafatillah waaye yow mi nga xam ne yaay ziyaara ji yenent bi boo demee ziyaara ji rasulullahi jottali ko sama yóbbante moo taxoon nag muy ñëw nag di tuub di balu xam ni foofa ku fa dem war ngaa tuub ku fa demit war ngaa jégglu ci lay ñëwee nag ci euh, bayit yi nuy tey di wa anta waliyul afwi famxu bi nasain min safxi masawattu min safahat mu ni yàlla yow mi borom njéggal yàlla yow mi borom mbaax yow mi nga xamante ni nii ku la euh, euh, jox ngantam nga nangu ko maa ngi lay jégglu di la ñaan nga baal ma te effacé li ñu bindoon ci page yi bàkkaar yi mu ñuul kukk yàlla effacé ba mu set wecc mbokk yi loolu la ñuy nar a yéen tey dañuy dem régi rek ànd ak sunu euh, mbokk yi jëli sunu morceau bi nga xamante moom la ñu jëkke indil di Umu Kalsum ci wa anta waliyul afwi famh bi nasahin min asafhi ma sawattu min safahat régi ñu dem incha allahu vois-tu تقبلت من ndeysaan mbokk yi yéen a seetaanandoo noonu mu kalsuum ci euh, texte boobu mu andi ci Ahmed Shawqi wax naa la léegi ni bi mu koy bind daf ko doo daf doon réccu di tuub wax ni yàlla wa anta waliyul afwi yow borom njéggal gi famxu effacel bi naasiin min asafha ma sawattu min safahat nga faase ko te ànd ak njéggal gu rafet njéggal gu dul ànd ak yeddaange waaye it njéggal gu nga xamante ne ni dafay labal bàkkaar yëpp ma sawattu li ma ñuulal min safahaati sama page bàkkaar yàlla faaseel ba mu set mu ni nag li ma ko yóbbe mooy wa man tadxaki dunya ilayhi fa yaxtarir yamut ka qatilil xiid bil basamaat mu ni li ma ko yóbbe nag mooy topp àdduna topp jongoma yi topp nafs ñoo ma yóbbe loolu moo tax ma ñuulal kukk sama page bàkkaar mu ni nag bu fekkente ni nii nag tuub naa ko ba jéggalu ko nag wax dëgg yàlla nag danaa am mbégte waaye it nag yaakaar naa ni soo sukkee ci raw du yenent bi te ñaanal ma ko yàlla dana ma ko baal moo tax mu di ko yóbbante ni ko iza zurta baada albayti qabra muhammadin wa qabalta maswal aadumi al aturat wa faadat min addamci alcuyuni mahabatan li ahmada bayna alsitri walxujurat fa qul li rasulillahi ya xayra mursalin abustuk ma tadri min alhafawat Ahmed Shawqi nag bi muy bind mbokk yi mi ngi bindoon iza zurta ya mawlaaya qabra muhammadin loolu la bindoon waaye Umm Kalsum moo changé wayu wax Ahmed euh, euh, waxat Riyadu Sumbati mi koy laxlu ni ko dindil ma yaa mawlaaya ji parce que kenn du jëm ci yeneen bi deet yëkkati keneen di bàyyi yeneen bi ndax def ko ni yow euh, sa majesté yow sama buur yow sama sama sang bi boo demee ci yenent ba um kalsum ni ko beneen sang amatu bu budul yenent bi kon nag dindil yaa mawlaaye ji nga def isa zurta baadal bayti boo ziyaaree ginnaaw néeg bi ndax bu jëkkoon noonu la ñu daan doxalee da nga daan aji ba pare door a dem ziyaare ji yenent bi waaye nag ñun ci suñu chance waa Sénégal dañuy jëkk a dem ci yenent bi comme mooy sunu avocat ñu jox ko suñuy dossier mu jël dossier bi ànd ak ñun ñëw Makka ñëw Arafat ñëw ci place yu tedd yëpp dellu ci sunu kanamu borom yàlla jéggal ñu moo tax mun ko nag boo ziyaare jee yenent bi wax ko ni ko abu suk ma tadri min al hafawaat maa ngi lay sukkal di la raamal di dénk sama bopp ni yont yàlla yaquba dénke woon boppam boromam moo tax mu nan ko nag euh, bu boobaa wa faadat min ad dam'i al uyuni mahabatan say rangoñ dana tuuru ndeysaan ndax émotion bi waayet ndax euh, respect euh, spirituel bi nekk ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa nag yëgal nii maa ngi lay yóbbante te nga bañ maa fàtte waaye it nag lu mu xat-xat rek waxal yonent bi ni ko suubuka fi charqi albiladi wa garbiha ka ashaabi kahfin fi amiqi subaat ne ko sa sa sa sa taalibe yonent tibi sa askan askanu yonent bi waaye sa xeet wi ci àdduna bi yëpp fi amiqi subaat ñu ngi ci ay nelaw yu xóot nelaw yu saggante waaye ñu ngi ci nelaw yi bàkkaar waaye nag ñu ngi ci njàqare ak tiitaange comme ni nga xamante ne ni noonu la asxaabul kahf yi nekke woon ci njàqare ak tiitaange ba tax ñu gàddaay dem ca seen xunti ma tëdd fa at yenu fa tëdd ne ko daal nekk nii nanu wallu ndaxte jaaxle nanu waaye nag lépp nu na ndax lu tax bi ay aymaanihim yi yor na nanu ñaari leer ci sunuy loxo muy zikrun wa sunnatun yor na nanu leeru alquran ci loxo bi yor leeru sunna ci loxo bi kon lu tax ñuy jaaxleeti wala ñuy nekkati ci situation yii kon fa ma baaluhum fi xaaliki dulumaat lu tax ñuy dugg ci lëndëm yii ñu dugg tey jaaxle jullit yi ñu di leen rey ci àdduna bi di leen not ci àdduna bi te amuñu pexe mel ni nag dañu nekk ñoo nga xamante ni nii dañu amul euh, euh, solution ci seen dund waaye fekk solution yëpp a ngi ci seen i loxo ndax alquran a ngi ci seen loxo bi sunna ngi ci seen loxo bi kon nag yenent bi rek a fi sës ala ya rasul allahi ya afdal alwara faha nahnu fi dayqin shadidi tarakumi faha nahnu fi dayqin walam narju farijan si wallahi walhaadi li subli almakarimi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi loolu mooy texte bi ñu doon jëkka andi ñu dem rek suñu deuxième euh, texte bi nga xamante ni moom la ñuy àndi andi ceeg Rachid Ghulam ndeysaan mu way bay jooy ngeen gis ko di ngeen ko gis ci clip bi dafa way bay jooy ndax fi situation julliti tollu waaye fi ñu toll ci ay jafe-jafe mu way noonu di wax ni adrik na waay waay ngir yàlla yàlla yàlla dab sinu waaye yàlla gàttandunu yàlla wallunu adrik na ya allah ñu àndi ceeg moom ñu dem rési li élément bi te ñëw incha allah عابد يحمل في جنبيه إشراق seetaan gis ngeen nit noonu nga xamante ni nii noonu la wayee euh, addirik na yàlla wàlluñu dab ñu ndeysaan ndax jaaxle nañu mu ne aabidun yaxmilu fi jambayhi israaq al yaqin jaamukatu yàlla bii day euh, am na yaqin ak wóolu ci boromam waaye it nag layluhu aayun wa dikrun wa salaamun fawqa aljabin mu ne guddeem day jàng alquran la guddeem day tudd yàlla la guddeem day ñaan jàmm la nga gis nag leeru alquran bi ci jëbi innahu quranu rabbi alquran moo moo mel noonu ndax euh, soo soo ko jàngee te gëm ko rek alquran wan la boppam moo tax kenn du jàng alquran wala nga doon nitu alquran ñu di la gis di la jaawale fuñ ko fuñ la gisee rek danañu danañu danañu xàmmee ndax euh, nuuruhum euh, te saa bay na ay bay ne ay diihim su ma juumul waaye it nag euh, wallazina maahu ashiddaau ni mu waxoon ci leer googu nga xamante ni nii mi ngi jolli ci seen jëyi euh, sallallahu alayhi wa sallam simaahum fi wujuhihim mu wax ni turattiluhu tasaabihi tudiu bihi masaabiha yi ma koy jàng ci sama làmmiñ waaye muy leeral sama xol di leeral sama xel waaye it mu nekk loo nga xamante ni nii dafay euh, indi solution ci sama dund su fekkee xam naa dëgg-dëgg lan mooy alquran kon nag yàlla adrik naa yàlla dab ñu wala nga wàll ñu ndax jàq nañu jaaxle nañu mbokk yi loolu mooy suñu deuxième élément xam naa dañuy dugg rek ci suñu troisième élément di Mouhamed Abdou nga xamante ni nii mi ngi indi texte bu am solo di Allah ahad Allah ahad ñoom nag noonu lañ koy waxee waaye te euh, allah ahad la wax mooy yàllaay kenn te ñu war a koo kennal ba ñëpp xam ni moom rek mooy kenn ndax allahu fawqa alxalqi fiiha waxdahu wannaas taxta liwaiha akfaau kon nag ñu dem jëli suñu euh, troisième élément ci euh, seen émission arrêt sur texte ci seen t ci seen télévision TFM religion ngeen ci ànd ak seen mbokk si se jinge ñu dem jëli élément bi te ñëw incha allah waa régime وجدنا كتاب الله وفدنا الحساب أخوان من طاعة شعبنا ndeysaan gis ngeen gis ngeen ni mu wooye Mouhamad Abdou allah ahad allah ahad war di baat mu allah ahad yàlla kenn la mu ni ginnaaw nag wóolu nanu te gëm ni xam ni yàlla kenn la li ñu war a teg mooy ardi baad sama réew ginnaaw bi ñu gëmee yàlla dañu war nag fonk suñu réew baat baada allah ardi mooy ginnaaw yàlla nag nañu jël suñu réew fonk ko ndax nit amul lu dul fa mu nekk nit amul lu dul environnement moo tax mu ni nag fi yadina kitab allah wa fi yadina al husaam fi yadina kitab mu ni sunu loxo bii day mi ngi ci yor téere yàlla bi waaye fi yadina al husaam ñii ni fi yadina al suñu suñu beneen loxo bi eh, jaasee ci nekk ñu ni nag bëggul tuddul jaas yi juy dagg waaye dëgg la wax ak nag légitimité maanaam nit ku nekk war nga mën a dund nag ci liberté moo tax mu ni fi yadina alxusaam mu ni eh, ñii ni alxusaam ad dawa xusaam boobu mu tudd jaasi boobu mooy mooy saafara mu ni kon solution mi ngi suñu beneen loxo bu ñu amee alquran ci bii loxo rek beneen loxo bi solution moo ci war a nekk ndax kenn warut a am alquran deeti jaaxleeti eh, wala ngay tumburanke eh, fooy jaar ba mucc ndax fi yeddina kitaab allah te ci lépp nekk mu ni nag ixwanana min taa allah fi xarb wa salaam mu ne waay waay sunu mbokk yi sunu mbokk yi min taa allah nañu jublu ci topp yàlla moo gën fi xarb wa salaam ñu bàyyi guerre bi te ñaan jàmm waaye nag allah maak ya buladi yal na yàlla ànd ak yow yow sama réew yal na yàlla teg la loxo yow sama réew yal na yàlla yal na yàlla may la jàmm yow sama réew mu ñaax nag ñi nga xamante ne nii ñëpp ñoom ñoo composé réew mi di leen wax ni nañu dox te wax ngir jàmm rek am moo tax mu ni xillal wafa min tabaana wa aadatna tiibu karam mu ni miin nanu miin nanu kóllëre ci suñu nature mu ni kóllëre rek lanu miin ngir jëflante bu rafet mu nu waaye wax aadaat na suñuy culture suñuy aada démb day tayib wa karam dafa teddoon dafa baaxoon wante léegi nag gis nga ni mbokk yi demeetul noonu moo tax nag muy ñaax di wax eh, ñi nga xamante ni nii ñooy ŋànk réew mi ak ñi leen di jàppale ak ñi leen jongoru muy opposition di pouvoir eh, di société civile di administration ñëpp la waxal xukkaamana xukkaamana min shaabina hada oxu wa hada bnu am mu ne eh yéen ñi nga xamante ne nii yéen nañu jiite waaye yéen ñi yéen ñi tongaamu ñi nu jiite ngir waaj noo jiite yéen it yéen ñii seetaan ni yéenay société civile nga xamante ne ni yéenay régulateur yi yéen it maa ngi wax ak yéen waaye yéen administration bi nga xamante ne ni yéenay saytu eh, lépp loo nga xamante ne ni moom mooy soxlay askan wi yéen it maa ngi wax ak yéen di leen wax ni hada oxu koo mën a jëflanteel rek sa mbokk la bu dul sa mbokk eh, di sa dëkkandoo waaye hada nu ab kii sa doomi bàjjen la wala sa doomi ndijaay la wala sa doomi tante la kon nag looy jëflanteel moom looy jëflanteek moom rek bàyyi ci xel loolu message boobu mbokk yi war naa jàll ci ñëpp war naa jàll ci pouvoir war naa jàll ci opposition war naa jàll ci société civile war naa jàll ci administration ba ci régulateurs sociaux yi muy kilifa diine yi ak kilifa aada yeeg ñëpp message bi war naa jàll jàll ci ñoom ni leen haza uxu haza bunu am koo mën a jëflantee rek sa mbokk la mbaa muy sa sa sa sa doomi bàjjan mbaa muy sa doomi ndijaay mbaa muy sa dëkkandoo te dëkkandoo nag jàmm ca gën kon nag euh, waay waay ngir yàlla xën na jasad fii faad ruux aw yaram ni nga xamante ne ni bu amul ruux du dund noonu it na balet lil xiir mi ni mi ni suux mu ni noonu it réew war a amee jàmm réew bu amee jàmm rek dox waaye bu amul jàmm nag dara du dox mu ne bu nu amee jàmm rek nëbb nii suruux danañu tabax ay njënd danañu tabax ay étage kon nag jàmm jooju nañu ko waxal ñëpp ndeysaan ba ñëpp dégg xam ni nag wax dëgg yàlla euh, réew jàmm rek ci jàmm rek ay euh, ci war a dox nañu ko wax ci lang yëpp wax ni réew daal jàmm rek moo ko moo koy doxal kon nag euh, nañu dox jàmm te wax jàmm ndax loolu moo jig jaboot te kenn mënul toxu ci réew mi bu fekkente ne ni jaboot nga bu fekkente ni citoyen nga danga war dox rek ngir jàmm am ngir yàlla rek tabaxal ñu jàmm jooju ndax jàmm dañ koy wootal mbokk yi loolu moo doonoon suñu suñu suñu troisième élément dañuy jàll nag ci suñu dernier élément incha allahu jëli ko ci euh, Amal Mahir moom it muy woykat bu mën a woy macha allah waaye reprendre woy wii di woy umm Kalsum te mu woyee ko ci euh, salu qalbi gadaata sala wa taba wante nag mu reprendre jëlee fi nga xamante ni mooy wa anna albirra xayrun fi xayaatin wa abqa baada saaxibihi sawaaba mu ni e, yëgal ni mbaax ak yiw moom rek moo jig dund wa anna albirra xayrun fi xayaatin wa abqa baada saaxibihi sawaaba te moo gën a sakkan nag waaye lu dul mbaax du yiw sakkanul boo ci nekkee léegi mu xat kon nag euh, texte boobu la ñuy dem jëli rek ànd ak waa régie incha allah kon régie ñu dem te ñëw incha allah. نعم الماهر وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا mu ni mbaax ak yiw loolu rek moo jig dund wa abqa moo gën a des baada saaxibihi moo gën a sakkan ci boroom it ndax eh, musiba eh, du yam ci boppu boroom mu ni nag nabiyul birri bayyanahu sabilan wa sanna xilaalahu wa hada shiaaba yenentub njub bi yenentu bi nga xamante ni nii mooy yenentub yiw bi di yenentu mbaax bi moo tëral loolu comme sunna xàllal ko yoon wu ñëpp mën a jaar te ku ci jaar mucc mu ni nag yenenti boobu day wa kaana bayaanuhu lil hadi sublan njubam day ak gindeem sallallahu alayhi wa def na ko muy Euh, sublan di yoon woo nga xamante ni ku ci jaar rek daa mucc maanaam yeneen ci bi daal indi na tëralin woo nga xamante ni nii wenn tëralin féeteetu ko kaw ni ko ak Ahmed Shawqi waxoon euh, allah fawqa alxalqi fiiha waxdahu wannaasu taxta liwaa'iha akfaa'u addiinu yusrun walxilaafatu bay'atun wal amru suura wal xuquuqu qadaa'u mun ko yow sa système da nga jël yàlla teg ci kaw mu féete ñëpp ñi ci def ñëpp wàcc di ay jàmm mu ni waayet nga fexe ba li ñëpp bokk ñu di ko diisoo al amru suura mu ni waayet nga fexe fexe ba àq yi ñu koy attee di ko teg ci dëgg kenn bañ a tooñ kenn kenn bañ a lor kenn mu ni waaye nag euh, euh, jël nga li nga xamante ni nii mooy njub ak mbaax nga bàyyeekoo nit ñi waaye nag jël nga diine ju rafet teg ci nit kon nag falaw anna insaanan taxayyara millatan maxtaara illa diinakal fuqaraa bu doon nit dina tànn diine ak système bu ko mën a jariñ fii mën koo jariñ le mënut bu fi bàyyee sa boos rek dootu ko amee te feneen moo tax mu ni nag yeneen tu boobu nag wa kaana bayaanuhu lil hadiyi sublan wa kaana xayluhu lil xaqi raaba wa kaana xayluhu pouvoir am la ci jublu waaye dignitéem la ci jublu mu ni fasam wayit daf daan euh, euh, bu ko musaan laab rek dëgg tax mu laab ko waaye tooñ taxul mu laab ko waaye am na ñoo xëy nag seen fas suñ ko laabee rek tooñ a tax mu mu mu ñu laab ko comme nag euh, dëgg rek moo ko daan tax a jub dëgg googu nag léeg-léeg mu metti ci ñenn ñuy jàpp ni ñu jàpp ni dafa soxor waaye soxorul waaye dëgg googu mooy doon saafara yi kooku waaye léeg-léeg mu neex lool ci ki nga xamante ne ni nangu na muy li maam Seydi Hadji Malick doon wax ni bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara ñaar la amee woon fas wi ak ak ak tedd nga ji boo boo jàggee rek fas wi ñëw maanaam dëgg gi taxaw waaye boo boo nooyee nag yiw wi ñëw muy bi xayrihi wa bi xaylihi di ñaar man mel ni euh, maam Serigne Touba daf ko feelu ci bayit boobu maam Seydi El Hadji Malick moom it wax ni kilta yadayhi laha saayun tulazimuhu bazlun wa basun liman laanu wa man jaaru mu ni benn bu mu mën a doon ci ñaari loxo mi rek sallallahu alayhi wa sallam amoon na ñaari fonction bazl ak bas bi mooy tabe ba ñëpp ni kii moo baax waaye nag dëgër ba ñëpp ni kii kat dafa am fulla kii dafa dafa met sallallahu alayhi wa sallam li man laanu wa man jaaru ñii ñi nooy euh, basile bi ñëw waaye ñi jàgg it euh, bas bi ñëw ci ñoom ndax euh, loolu mooy doxal àdduna ah, ahmed sawqi nag di wéy di continuer ci ci way bi mu ni wa allamana sallallahu alayhi wa sallam wa allamana moo ñu jàngal binaa al masjidi tabax tabax personnalité hatta axaz na imraatal ardi ay imaaratal ardi ti sooba mu ni moonu jàngal ba ñu ba xam nan lañuy ñuy mën a dominer adduna bi ci euh, foqar xarñi goo nga xamante ni àndul ak néewal doole kenn wala lor kenn wala jël alalu kenn wala ëpp doole nit ki dànk wante dañ koo teg ci stratégie boo nga xamante ni nii fexe na ba foqar ñi adduna bi ci loxoy tooñkat yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ko yoroon daan mbubboo seen nguur wala ñu daan mbubboo seen pouvoir wala seen euh, seen xam-xam wala seen ak pal wala sax euh, seenu askan léeg lekk di ci not nit ñi mu ni nag wama naylul matalibi bit tamanni mu euh, dëgg-dëgg nag mébét mu ni nit lu mu am rek ci mébét bu ko bëggee rek il faut nag mu xam fu mu koy jaar ba am ko waaye nag tëdd di nelaw rek te naan bëgg naa nangam bëgg naa nangam nee na bu boobaa nag doo ko am de ndax tuxasu dunya xilaaba adduna dañ koy jël ci ci ñaw waaye adduna dañ koy jël nag ci xam Euh, foo koy jaar wante adduna nag boo tëddee di nelaw ni yàcc yàccaara rek adduna du mos ñëw tege ci say loxo parce que yàlla bindewul noonu adduna ko nag mbokk yi loolu moo doonoon say seen euh, émission arrêt sur texte loolu it moo doon texte yi nga xamante moom lañ doon indi di leen ci euh, ndokkeel di leen ci ziarawaat rek di leen ci baluwaat ak di kontaan ci ñi nga xamante ñi ngi topp émission bi saa su nekk rawatina ñi nga xamante ni ñi ngi ci bitim réew ak ci biir réew mi ñëpp di gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi muy sunu mbokk Ibou Diouf ak sunu mbokk Bouba waaye di nuyu waa régie madame euh, Guissé waaye di nuyu soxna Gancir mi réaliser émission euh, Serigne Khadim Ndiaye mi nga xamante ni moom mooy euh, ki nga xamante ni moom mooy monteur bi di leen tàggu ba beneen yoon seen mbokk Ibrahima Cissé jinge ngeen ci doon àndal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf حديث الروح لله Arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind